ndax euh, mag la woon daanaka yoroon na ñetti soxna yoroon fukki doom ak benn euh, faatu ci anam bu mel ni mhm. boo xam ne ñëpp a koy naqarlu euh, lii kenn mënta am mooy te fexe aussi justice def li war ndax jàpp nañu waaja ndax bi mu defee ni def dafa doon daw diggante ngay xoox ak mbuur fa la ko yoon tegee loxo dellu si ko Ndakaaru muy histoire boo xam ne c'est tellement banal ndax ñii ñu ngi wax naan problème mu téléphone la mhm. boo xam ne ki faatu dafa jël téléphone bi jaay ko jël ci ñeenti téeméer jox ko ki nga xam ne moo ko faat. mu ne ko delloo ma samay huit même bu version boobu aussi amee ay na beneen version bu ci am mais dans l'un ou dans lu ci munti am faat bakkan c'est le sommet surtout que tëkku nit. Mhm. ci weranteeg moom nee ko comme que di am na jàppale sa bakkan sama loxo la ne. Mhm. Euh, ma jàpp ne tey loolu ba mu amee aussi. ñi ko fekkee mën nañoo artu. Mhm. balaa fat bi di am. Mhm. ndax ku ci ne menacé na sa morom. te menace boo amee rek je crois ki menacé waroon nañu ko yóbbu ci yoon. Mhm. ki faatu mënoon na dem ci yoon. porte plainte su boobaa ñu jël si ki nga xam ne moo ko faat mënoon na wàññi lu bari. waaye yàlla buy décider ak buy ndogal. day muur xel yi. fàtt fépp ba kenn doo xalaat donc suñu borom moom moom mooy jël te nu ko neex lay jëlee. si yàlla na ko yàlla may mu xippee ajana. amiin euh, li soxna Anna wax lu wér la. mbir yu mel ni dafa tàmm dem ci réew mi ci jamono ji ñaar fukki dërëm sax da gis ko ci faat nit amoon na fi problème am ñaar fukk. nit rayee nit boo xoolee lépp ça tourne autour de l'argent mm-hmm. anam ne moom ñuy amee alal. Mm-hmm. ci ban anam la. xaalis liggéey koy joxe. business joxewu ko deal joxewu ko dóor joxewu ko dafa am benn xisa gu ma benn waaye doon nettal ci benn kilifa. waji ji dem ci kilifa gi day yóbbu alal gu bari jox ko addi kilifa gi kilifa gi jël alal ba denc mhm. bu togaade ab diir wat alal gu bari ñew tegaat ko ci loxoom mhm. mosu ko laal nak mom kilifa gi ba bes ma andi addi mu dajale ko ci doon jox lepp tek mhm. xaalis bi bari na trop ci ay beutam mu ne ko ana diw ana loy liggey ba dima andi alal gu bari gi di joxe addi ana lan ngay liggéey ndax mosuma jëfëndiko li nga ma jox mi ngi ma doon denc te mu ngi ni nga lool mu ne ko man de damay business sëñ bi ne ko salade de business de bus news moo ci top bus news bus duma manam mhm. pour dire que boy liggéey lu lewut. Mhm. bus dina ñew amul ku yalla may. ngay def naka su dul non di ci mucc bu dug ci bàmmeel amul. yalla li wax leer na un plus un égale deux. mënu ñëw ay pexé xarañ ba suñu borom bàyyi ñu ñuy def lu ñu neex ci adina mhm. day dem yomal xeem bala ñuy dem fi dañ koy amé sëñ Tuubaa dafa wax né salade bi wax li la neex. def li la neex dee dem yomal xeer am lu la neex man Serigne Touba aw ma ko ku gis fenn demal nga wuti ko te nga koy gisee ñeew ma ko koy yor. Mhm. ndax bés dina ñëw suñu borom jëflante moom ci saayir. yàllaay tey ne la watul ëllëg parce que. Mhm. dañuy wax naan boo amee bàkkaar sa diggante ak sa borom yërmande yàlla yaa na yaa goo xam ne bàkkaar goo munti def. Mhm. dala koy jéggal. ci soobu coobareem waaye nee na yërmande yàlla duggul ci diggante bàkkaar nit ak nit. kooku suñu borom dina ko atte fii atte ko fuñ jëm fekk magum jëm xëy njàng-njàngam bam jeex wala jàngul waaye nekk ci métier am wala di kërti kërti di am ay juróomi ki ñaar dërëm ñetti dërëm di ko dajale ba yor ci njaboot mm. am ci buntu teraanga gu ubbeeku man puy moo jege jógee fëleeg samay wax ju neex samay solo gu rafet samay pexeeg sama dem ci sëriñ di ko yeewa konoot ba xëy récupérer la mu yoroon lépp mm. dem ak moom bàyyi ku mu torox njabootam tumuranke kenn xamul ci ci lu muy ne ma xëy suba bëgg a tedd ci alalu jàmbur bëgg cee am mujj gu rafet mënta nek c'est pour dire qu'il faut qu'on revienne à la valeur alalu àdduna am na njariñ waye bi barke mo gën bi bari té li wut mhm. té ñun dañoo toll ci jamono joo xam fiñ toll ni nak tok muy dox gi ak alal gu bari gi nga da ngay yoroon monsieur sar mu rombal ak oto. lan mooy toog muy dox. tok muy dox moy nu mu gëna yombé rek. business ah, business facilité li lijjanti. damay tok sama buntu kër tey monsieur sar romb ma ak oto. Mhm. dem di ñew ben maa koy ñé ci cholin ñaar maa ngi koy naw ci dëkkuwaayam. Mhm. ñett maa ngi xool ni muy dundee que ne il est dans vie aisée. Mhm. mais intérieurement la muy dund. du ma ko wax. Mhm. fa mu jaar ba am la mu am su ma ko nettali woon tey damay jàpp ne man maa ngi soog a judd. ñun dañuy réere mbir des fois ci yu mel nii xool nit naw ko xool nit ñee ko si am-am ak ci doxin ak ci tolluwaay. loolu bokk na ci li nga am di agressivité bi am entre nit ak nit léeg-léeg sax nga xool monsieur Sarr yéene da nga ko maanaam da nga koy ñëw ba mujj ko sax. yéene mu ñàkk wala mu tumuranke bu ko defee nga yem ak moom euh, même niveau mm-hmm. Mm-hmm. nit ñi yemuñu wërsëg yemuñu barke dañ ne ñaar yi mm-hmm. doomu aadama bu ko yàlla dénkoon musiba am ruux doomu aadama fu ko suñu borom di roccee su ko dénkoon doomu aadama ne ko mun naa la wax fi nga yàbba rocc ruuxu Masamba ak Mademba bés bu laa la may ñu di juróomi ne ya c'est pour dire que animosité bi am ci suñu biir ñun il faut qu'on revienne à l'orthodoxie de la discipline damay naan en Europe tey ñett mooy mm-hmm. développer dëkk discipline indiscipline dëkk bu mam am mm-hmm. hypocrisie dëkk bu mam mu na malhonnêteté intellectuelle dëkk bu mu ñett yii ba àdduna di tukki tànk génnul ci réew mi tànk dëggaatuñu jikko yi mm-hmm. pétrole bi bu doon bal ni géej di bare ci ndox ndox di bare ci géej alal gi or gi jamaa ji bari te ñett yi tënkuñu ko ci suñu bopp duñu avancer mais tey naqar lu weesuwul lii nga xam ne te nag c'est tellement récurrent que dañoo banaliser léegi faat bakkan. faat bakkan léegi dafa yomb trop am na ñoom ne kaso ko sax fi mu nekk ni lieu de refuge la ci ñoom. ñàkkub jom bari na ñoom ñi ñàkkub jom. ak décorage ci àddina. te ñu teg ko seen bopp. moo leen di poussé dañuy bëgg a def ay faute pour dem dugg ci kaso ba toog jàpp seen njàmbur une vie aisée mais bu ñuy dem ci kaso ba du ñu yóbbaale. seen bopp kese mais dañuy yóbbaale bakkanub jaambur bu ñuy jël yóbbu ci bàmmeel xañ njabootam teranga mhm. war nañu yóbbaale ko xam ne alalam wasaara woon nañu yàq ko uniquement pour lan soxorante gi nañu delloowaat suñu xel ci yàlla suñu borom nañu defaraat suñu jikko yi mhm. di bàyyi nag ñi war a wax ñuy toog ci plateau yi di wax mhm. et malheureusement presque bu Sénégal bokk na ci tey. Mhm. jikko yi li muy yàqu bokk na ci loo xam ne sa loxo génn ci parce que naan kii de détient la communication l' information détient le monde tey da gis ci plateau télé yoo xam ne mais boo toogloo déglu gars yi di moo xam muy journaliste moo xam muy chroniqueur wala analyste mais façon bu ne ngay gis ku ci nekk na ngay waxtaanee ak na ngay waxee. Mhm. mais doo ci jëlee njàngat mais danga nga ciy jëlee lu yàq. tey quand on parle de chroniqueur c' est quoi un chroniqueur am ban xam la ñu am ban njàngat la ñu am ban école lañ génne da ngay ko am ne viam day dem ba benn instant la doon dox liggéey doxatut mu wëlbatu ko ñoo toog ñu invité ko benn yoon télé ñaari yoon télé rek mu xaw a wax lu xaw a yéeme rek suba Massamba invité ko gannaaw suba ma dem Mademba invité ko gannaawaat suba c'est les journalistes et les propriétaires des maisons de presse yi créent malheureusement ces soi-disant chroniqueurs et journalistes yi nga xam ne seen information seen communication tënkuwul dul ci bakkan mm. te nag dafa am loo xam ne ñett yi suñu ko wax ci jabartu jawartulaaha jóg leen bi kitaabihi ak téere sunu borom bu ngeen bëggee dugg aljana ilaa duxuli jannataahu malatu nafse noot leen seen bakkan wa ak iblis ahastu min dunia aduna husatili jana wal khadil khawa ak banex ñun nak malheureusement dañu jël ñetti yi tënkaale ko suñu bop mhm. banex bëgg nañ ko bëgg nañ àddina noot ñu suñu bakkat te fu ñu barab ba ñuy moye bo boo suñ ko woote woot tey day fess dell donc encore une fois de plus dañu mhm. dellu si sago yi bakkan gu mos dund mhm. mos de kon àdduna rek li sëñ mbay waxoon rek jaru fi pënd ba tax nga yendu ab doomu taal di dox ko moom naan am naa ci ngërëm ab yàlla ak yërmande yërmande yàlla <laughs> nee na boo ba yegg fañ ko koy yendeeku mm. ab ngelaw dana forom raaf doomu taal ga nga jàppe woon yërmande yàlla la mm-hmm. nga teg ko ci buntu kanamu yàlla suñu borom boo ñu doon fekk dara mooy mm-hmm. nit kuy nax boppam mm-hmm. tegu ko ci dëgg lu dul ci bakkanam am ci nawel am ci cofeel waaye dëgg ga fen nga lu mu rëy rëy rëy rëy dëgg lu mu ndaw ndaw ndaw ndaw te fen muur ko wallaay bu fen jébbi rek daanaka fen day raas donc nañu dalal suñuy sagoo te kii def jëf ji mm-hmm. ak ñeneen ñu defoon jëf jii tamit mm-hmm. nañ leen bàyyi ci kaso ba atte leen atte ngi war ndax ëllëg mm-hmm. keneen ku ko nar def si nga bàyyiwaat sa xel jërëjëf Ibrahima Pouye monsieur Sarr li xew fële ca Seras donc ay collègues yi doon liggéey kenn ki faat moom noo ko jàngate waaw mooy euh, li ma wax démb rek mooy les valeurs ñun dañu am problème jikko dañu parce que am na ay loi yi nga xamante ne euh, tubaab bi bi mu koy voté di ko fi bàyyi loi yooyu noonu tey jii nii amul benn chef d'état ba nga xam ne am nga fitu génnee ko mooy les lois yi nga xamante ne moom mooy tënk les cérémonies au Sénégal que ça soit cérémonie religieuse la wala cérémonie familiale les gaspillages loolu tey jii nii amul kenn ka nga xamante ne ñeme nga cee yëy yàlla te pourtant mu ngi fii loi yooyu dara soppeeku ci. loi yooyu ba tey ñu ngi fi donc moy lan moy yàq gaspillage lan moy indi nit ki nak ba mu tollu ci niveau bobu non ñu ngi wax ne euh, affaire yi souvent day ñëw mais euh, pression familiale bokku na ci li ñu sonal pression familiale bokku na ci li ñu sonal on oublie l'essentiel et dañuy dem ci artificiel lolu mo indi suñu jikko yi ñuy topando tubaab bi nga xam légui mu ngi ut ci ay valeur en Afrique et dans les pays yi nga xam ne la ñuy wax les pays pauvres parce que nit ki ñaar yi yaa ko moomal sa bopp mooy la propreté extérieure la propreté intérieure ñaar yi yaa ko moomal sa bopp mën nga xëy doo ndekki mën nga xëy doo añ mën nga xëy aussi yére bi ngay am benn rek ngay fóot bu guddi bu ba mu bu bëccëgee nga xëy ko sol ko mais loolu day set loolu yaa ko moomal sa bopp mooy propriété extérieure propriété intérieure mooy lan mooy li nga xamante ne yow tey jii nii am na niveau booy toll soit ci ñàkk la walla ci am mais nga am yàlla quoi boo amee lu mu bëri bëri bëri bëri bëri bëri retourne nga xam ne yow boo génnee ci mbedd mi waa ji bale bale bi mu téye moomoo ko boo ñàkkee lu mu bëri bëri bëri bëri bëri yow sa paix extérieure yow sa bopp ki ci biti moomu ko yow nga mën a gérer sa bopp man il m'arrive ma toog kii yu xonq yooyu weccet yu xonq yooyu noonu ñuy dajale boo demee bitig ba ñëw nga def ko ci benn pot ma jël ko calculer ko jox sama doom ne ko demal jëndi mburu xam nga lu tax dama ko bëgg a jàngal ne ko du tout le temps rek laa la war a jox bi dix euros ne demal hmm. jëndi mburu hmm. tey dama lay dajale weccetu xonq yooyu pour dindi ci moom complexe pour bu demee ba taxaw ci bekkaraay bi li ñuy wax bekkaraay mooy boulangerie bi ñuy jaayee mburu booy bee ñëw ak cinquante euro pour jënd wala carte bancaire tracé ko pour jënd moom mu jël di compter ki muy ki ki koy jaay mburu di ko jéppi muy compter ba mot un euro nangam wala deux euro mu jënd ci mburu ñëw indi ci kër gi ñu lekk kooku complexe day dañ ci moom parce que loolu moom moo tax ñu naan tubaab bi raw ñu tubaab bi complexe wul yoonam nekkul ci li nga am toppatoowu ko mhm. amal milliard faalewu ko moom li lim am moom moo ko intéressé donc nag loolu moo indi reyante bi di am mhm. ay nit ku ñëw agressé nit parce que li nga yor la bëgg mhm. moo tax mu agressé la lan moo ko yóbbu ba foofu noonu loolu aussi lu ñu jara seet la mooy lan mooy bëgg na takk jabar toll na ci amu ko bien que nag du ma coché du ma ñi nga xam ñu ngi def loolu ñooñ moom ci kaso bi lañu war a dee mais lu leen yóbbu foofu ñooñu aussi ña leen yóbbu foofu noonu dafa am loi ba nga xam ne indi woon nañ ko Sénégal loi boobu buñ ci delluwaatoon rek lépp am jàmm. mooy lan mooy ngénte mooy dëcc hmm. mooy takk mooy lii ñuy ooyee màggal comme ñu ngi ne poroxaan lañ jëm. Hmm. ay màggal ay gàmmook ay affaire yooyu noonu. loi boobu dafa tënkoon lépp pour ñëpp tolloo ñëpp nekk ci benn uniforme mooy dëkk yi nga xamante ne élèves yi dañoo niroo tenue doo xàmme doomu ministre bi ak doomu béykat bi. ñun nag problème boobu la ñu am boo demee ci tali bi ki am 4x4 bi danaan man damaa tiimu ki nekk ci suuf am am mhm. kalandoo bi mhm. donc tout ce problème là mooy suñu valeur rek il faut ñu delluwaat si suñuy valeur mhm. seen Tuubaa doo dox mukk ba gis benn kër ñu ne la moo ko moom El Hadji Malick Maam Abdou bi nga xamante ne peut-être fekkee nañ génération kër guñ koy tuddee rek daara la kër guñ na kër mam Abdou rek xamal ne daara la buñ ko ko mayaan moom du ko laal parce que nee na moom ñemewul mm. suufu si yàlla si ñu ko koy may wala ñu ko koy jaay waa mais ñun nag foofu lañ toll léegi nag pour defar defar loolu mm-hmm. euh, bu nekkul bu bu yiixul yaakaar naa c'est trop tard parce que xale bi balaa sama papa day wax mu ne euh, boo ñëwee ne ko dama bëgg soxna mu ne la est-ce que ut nga sa yaay doom mm-hmm. mais ñun bu ñu ut soxna. dañ lay wax naan la ndax rafet na boo ut jëkkër dañ naan la ndax am na donc est-ce que sóoraale nañ kiy jur suba kan la mm-hmm. parce que bu nekkee ne bu waa ji wàccee ngoon ñëw yegg si di wax ak yow nga yuuxu ko mu yendu ci place bi nga xam ne patron koy gëtën di ko sonal ba mu wàcc ñëw war a mën a nag am ka nga xam ne sax au moins dina dend ak moom waxtaan ak moom kooku téye téléphone nekk ci léegi intérieurement kii am na lu ko naqari mu métti ko te mënu ko extérioriser kooku boo ko jamee benn bant rek mun na laa rey loolu nag moo indi souvent agression bi nit ñi di dem bay tollu ci instinct animal parce que nit ki nit la rek am na fu muy tollu day nekk rab jërëjëf léegi nag sur ça pour que rek ñu faire dëkk bi il faut ñu déllu à l'orthodoxie moy les officiers l'armée nationale nous ma yone légui nous communiqué ba nga marine nationale mu ngi out mu euh, concours des officiers euh, bu euh, EMAN moy école bu marine nationale école des officiers bu marine nationale mm-hmm. ñu organiser le 16 au 17 mars 2024 moy phase sport bi finis ni ci bataillon de sport civil bu mën nako def ans euh, ba ans ou plus tard le 31 décembre 2024 mën nako def PDL bi aussi mën nako def PDL pendant la durée légale moy ki nga dem na armée te deux ans mi mot mot motagul mën na def concours la ñuy pendant la durée légale moy PDL aussi mën na concours léegi nag di leen di wax rek ni la jeunesse ñu bàyyi toj bee xeex bi te dem rapproché wu ji jal Diop ñu jox leen information bi ñu dem entraîné ji ñoo def concours bi nekk ay officier officier c'est très noble. Mm-hmm. jërëjëf. ok Aïssatou euh, mu mel ne li xew Seras ñaari euh, collègues yu doon liggéey kenn ki faat moromam ci benn violence bu ak naka nga gisee Aïssatou. léegi rey nit ñi bari na man jàpp naa ne rek li koy indi mooy mooy manque de tolérance parce que léegi.